taxaw temm ngi xeex jàngoro bi di coronavirus le collectif des acteurs de la pêche ñu gën ko xam ci CAP ak seen njiit la Ibrahima Sall desuñu ci ginnaaw benn yoon ndax jébbal nañu bon d'essence ak ay produits détergents waa quai de pêche bu an Nous pour gunge pour de pêche secteur de la pêche le président du GIE interprofessionnel de pêche ak le chef de poste de contrôle des pêches nga à travers la sensibilisation l'information, du du pour que fièvre bi nga donc coronavirus Covid 19 bi. ndax sensibilisation du doy waye collectif des acteurs de la pêche nga xamni vu ak pandémie

di faral tamit di bañ négliger seen casque cas seen seen cash-nez moo tax ñu ñëw fi tay pour accompagner les deux services ak accompagner l'État du Sénégal accompagner encore les acteurs de la pêche. yaraax bu tëjee ñun la tëjal kon dañ ci japp jappalé suñu chammi yi lépp set taabal yi ñu défar ka ba mu baax set lañ wax kon dañuy andando ñu sétal ndax feebar bi fi dugg yalla musal ñu mu jóge fi. ñu ngi gërëm nak Ibrahima Sall di gërëm Iba di gërëm suñu chammi yi nekk tefes gi yépp ñu ngi leen di gërëm. di leen santa di leen ñaanal yàlla ndax lu nu mën rek ñoom la. ci seeni kàddu ñoo ngi ñaar askan wi yépp ñu gën a farlu te jëfee ndigalu waa Kër Docteur ngir mën a jàmmarloo ak mbas mii di coronavirus. les mesures barrières c'est-à-dire quoi ku ci nekk même bu ñuy jaay ñu ñu am idée du mettre à distance di mettre à distance un mètre cinquante ou un mètre maximum ndax fii sax bëri na ngelaw donc eh, beneen business bi moom mooy ñuy raxasu ak eau de javel bu baax ak saabu. di raxasu benn business moom mooy képp koo xam ni da ngaa gis nii dangay ngay sëqët da ngay sëqët su tar donc eh, ak tissu yi bu bëri bu tar wax dëgg yàlla eh, sëqët bi boo mënee jël cache nga jël cache-nez wala nga jël sa mouchoir daal di ko jël def daal di ko utiliser bu fekkee tamit mënuloo loolu booy sëqët nga jël sa loxo daal di daal di daal di daal di daal di croiser sa loxo pour daal di sëqët ci loolu pour bañ a donc vraiment lor ñee ñi nga xam ne ñoom ñoo ci des ndax lor kenn mooy lor nga ñëpp te kenn ku ci nekk da war a fagaru pour nga mën a garanti ñëpp mais ku ci négliger rek man nga lora andi lora nga bo xamni day am doy war. nanu raxas ba mu set defar ba mu bax ndax coronavirus bi jóge fi. kenn ku nek bo fi accès bo amé masque bo ñew indalé ko nga tak sa masque par pour bañ bo agé lor sa njabot waaw parce que kër ga nga jëm kër ga nekku fa bu jógee fi du ko ci kër ga ya nga jël fi yobbu ko fa fexel ba bu ko jël fi du ko yobbu ci kër ga li la ci muccel nak ngay moy nga sol masque. nga raxas loxo ba mu set boo àggee ci kër ga balaa ngaa laal dara raxasal say loxo ak saabu ordinaire ba mu set wicc boo ko defee rek yàlla mën na la ci dimbali dimbali ci bépp julit